leen fay bu baax. seen dressage lan la. Ah, waaw ñun suñu mag lañu fi ñëw fekk si muy Adja Rose jaañ donc ñu ñëw fekk fi beneen suñu mbokk traiteur ñu ñu ñëw nekk traiteur di ko jàppale si lépp rek pour mu rafet ndax suñu mag bu baax la macha allah. mais appel bi tey man fii dama fee gis plat yu bëri man déjà gis naa fi ceebu yàpp gis naa fi ceebu jën gis naa fi ceebu caga. la fille waaw fii moom macha allah dara jeexu fi jaañ naa yàq yaay baaba jaañ dara jeexu fi lépp am na fi dibi baa ngi ñëw michu bi baa ngi ñëw ceebu yàpp ceebu jën entrée yi lépp salaat chinoise loo xalaat lépp daal entrée yi lépp a ngi fi macha allah ñu ànd ak suñu mbokk yu baax yi waa tay si traiteur ñëpp a ngi fi ñu defar yëpp ba mu naaj macha allah. dara manqué aussi gis naa fi ay sauce béchamel gis naa fi sauce algérienne waaw gis nga de fu ne la ñuy fëlee lépp pour ñëpp kontaan rek macha allah fu ne la ñuy fëlee te am na yeneen sax yuy ñëwaat incha allah waaw. Euh, suba nag ñun yoof lañ jëm ñun ñëpp incha allah fekk ci suñu doom seeni laay incha allah ñun ñëpp suba foofu la ñuy yendu waaw mais tey moom dañuy ñëw invité gan yi dalal ñëpp ñu lekk ba suur pare nag jublu ci waxtaan bi incha allah. waaw merci beaucoup ah, appel bi macha allah ça s'est bien passé ñu ngi fii kër sëñ Mor di ko ñaanal yàlla yàlla na suuf oyof ci kawam te njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na suñu borom teg seen loxo mais macha allah tey appel bi moom yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp mais macha allah lépp jaar na yoon gan yi ñëw nañu añ yi bari na macha allah ñu ngi ci entrée bi instant bi ak dibi bi mais macha allah daal lépp doy na. dessert yi de l'autre ñu ngi de l'autre côté jus yi ñoo nekk côté bee. mais tout ça s'est bien daal macha allah macha allah yàlla nañu ko teew ay at yu bëree bëree bëree bëree bëri yàlla yàggal fi ma Rose mu yàgg taxawu njaboot gi macha allah lépp doy na. ah plat yi yi moom ça c'est euh, yëpp neex yëpp neex yëpp neex. gis naa la ci salade chinoise. waaw salade chinoise bi moom dafa neex moom waaw parce que traiteur yi moom macha allah li ñu yëpp neex na yëpp neex na trop. Mhm. ok merci jërë ngeen jëf. madame ñu ñëw ci dessert bi rek ndaxte gis nañ fi euh, ay mojito gis nañ fi ay yeneen yoo xam ne yow yaa ñu ko mën a waaye ñu ñëw ci dessert bi cocktail bi ay mojito passion ananas fraise ñu aussi ci dessert bi ay choux de mini gâteaux des verrines des tartes aussi am nañu ay milkshake waaw. lépp ci appel bi woote Baye Laye Seydi parce que suñu bésu maam la dañ ciy ñëw ala dañ ciy ñëw ak doole waaw ah, Baye Laye moom du wootee moom dañuy ñëw. waaye ah, lii tamit nag xëy am na fi de yii yëpp ay liggéey la mën nañ ci dugg dem ci pâtisserie yi ci restaurant yi di liggéey lii yëpp ça fait partie ci domaine kii bi mën nañ ci ñëw dugg hmm. merci.